benn fukk ak euh, juróom-ñaar ñoo xam ne am nañ ko ñaar juróom yi wér nañu am nañ juróom benn fukk ak ñaar yoo xam ne ñu ngi si ñu centre de traitement yi actuellement ñu ngi leen di fajee ci hôpital fan ñu ngi leen di fajee ci Touba ñu ngi leen di fajee ci extension wu hôpital euh, Diamniadio ñu ngi leen di fajee également ci hôpital régional de euh, Ziguinchor donc ñu ngi vraiment di góorgóorlu pour jéem que au niveau des régions ci région yi ñoo am capacité pour jël jël en charge euh, maladie li ñu mën wax aussi mooy euh, ñi nga xam ne dañu feebar dañuy seet ñi nga xam ne la ñu te am nañ lu ëpp junni ñoo xam ne ñu ngi leen ciy topp te euh, presque jege na junni ñoo xam ne génn nañ su suñu suivi mooy ñi nga xam ne dañu taxaloon ak ñeenti malade yi nga xam ne moom la njëkk am ñooñu gis nañ ni ba su 14 jours yi bi mu jàllee kenn amu ci feebar bi donc ñu si sant yàlla ci loolu maintenant nag am nañ lu ëpp junni loo xam ne ñu ngi leen di topp pour xool et normalement fii ak fukki fan ak euh, ñeent dinañu mën a xam est-ce que dinañu am feebar wala duñu ko am mais li ci am mooy waruñu am jaaxle suñu amee euh, cas yu bees parce que fi mu nekk nii contact yooyu nga xam ne dañu nekk contact à risque ñoo xam ne mun nañu am feebar bi te li aussi li am ci mesure yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ci tëj frontières yi pour ñu gis li nga xam ne moom lay indi il faut ñu am ay fan donc dina am au moins ñaari semaine yu si yoo xam ne si nañu mën a gis effet bi nga xam ne moom la am parce que ñi dugg déjà ci dëkk bi ñooñu am nañ fukki fan ak ñeent pour seen feebar mën a génn donc bu ñu jàppee ni buñ ñu ko tëjee barki démb la donc il faut ñu xaaraat tuuti donc bu ñu am jaxele su fekkee am na cas yu bees li ci am solo mooy euh, ministre de la santé joxe na ndigal en tout cas service de santé yi personnel bi yëpp ñu ngi taxaw Euh, ñu ngi jéem a yokk aussi capacité pour prise en charge bi pour mun leen faj donc pour que région yi bu nekk en tout cas ñu mën a am capacité pour mun faj maladie donc loolu moom ñu ngi ci jublu bu baax a baax donc ñu jàpp ni vraiment que jàngoro bi mi ngi ci dëkk bi loolu il faut ñu nangu ko ñu xam ko ba ku nekk si sa wàll nga mën a jël say matuwaay parce que du ay ñun waa kër docteur yi ñoo koy faj ci ku nekk sa comportement ak euh, topp ndigal yi ñu joxe. éviter regroupement yi loolu moo mën a may ba nga xam ne dinañu mën a xeex jàngar bi mu génn si dëkk bi ñu bañ a am ay cas yoo xam ne dina garaaw parce que ñu ngi sant yàlla ba léegi amuñu ko mais bu ñu taxawul trop ci ba cas yi nar a bëri mun nañ ko am te loolu dina nekk indi jafe-jafe donc ñu topp ndigal yi nga xam ne moom la ñu joxe ci wàllu euh, cet beeg ak wàllu ni ñu war a tey suñu bopp aussi xelal aussi suñu ay njaboot tee leen ci période yi ba nga xam ne feebar bi dina dina mën a taxaw donc loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax jërëjëf ministère de la santé tey jii ci dimanche ñaar fukki fan ak ñaar ci atum 2020 euh, nekk ci weeru mars ministère de la santé et de l'action sociale li mu jot ci ay examen foofu ca institut Pasteur mooy rek ci cinq tests yoo xam ne tey jii def nañ ko 11 ya am nañu li nga xam ne moom mooy